Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Books to learn English with Miss Saba dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Books in wolof ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Miss Saba ba léegi dañuy continuer ak yéen ci su ñetteelu leçon bi aju ci Go for English bi muy tombeek nag ci chapter number six muy juróom benneelu bunt bi li ñu am tey xam ngeen ne chapter bi mu nekk West Africa ak liñ ci njëkkoon a am tey mooy ñetteel bi ci li ñuy continuer ba léegi ci même système mooy languages of Africa languages of Africa mooy langage walla waxin yi nga xam ne moom la ñuy gën a dégg Afrique tekkiwul nag ne lépp loo xam ne nit ñi lañ koy làkk ci réew yi nekk ci West Africa bi la waaye official languages mooy langue officielle yi daanaka moom la ñu gën a cité fii mais dinañ si jàngee tim nan la ñuy waxee diw moo ngi dëkk nangam wala capitalu euh, dëkk nangam moo ngi wax nangam moo ngi làkk nangam incha allah en même temps dina amaale beneen système boo xam ne ni dina xaw a feeñaale ay exercice wala laaj yoo xam ne yaa ko war a tontu ci li nga xam ne mooy commentaire yi incha allah languages of Africa language mooy langage languages of Africa waye nag particularly in West Africa ci West Africa bi ndax moom lañu am ci bunt bi am nañu yeneen moo comme niñ ko doon gisee mu nekk ci grey bi donc yooyu mooy li nga xam ne mënul ñàkk terewul ne nag bu ñuy continuer di pratique dinañu am leneen loo xam ne dina gën a yaatu ñu dem ci listening bi muy listening mooy déglu listen and repeat déglu te bamtu déglul te baamtu english english english french french french language language language portuguese portuguese portuguese spanish spanish spanish languages languages languages bu fekkente ne dafa nekk lu bari muy plural ba english mooy anglais english english duñu wax english in english french french french french mooy français french language language mooy langage portugais portugais mooy portugais spanish spanish mooy espagnol languages languages mooy langaas yu bari loolu mooy baat yi nga xam ne kon ci lañuy ñuy sukkandiku mën a continuer ok ñu dem ci speaking bi ba léegi ci suuf are these sentences true or false tell your teacher léegi france boobu ñu jàngat ko ba léegi am lu ñu ci génnee are these léegi dañu jël these xam mooy lan ak bu dee benn lan la ñuy wax ak lan mooy contraire bi ak contraire boobu bu dee benn lan la ñuy wax are these sentences true or false tell your mooy ndax yi léegi bu ñu jëlee these these mooy yu bëri yi ma tiim these are my books yii nii samay téere lañu samay livre lañu léegi this this mu ngi bàyyi ko ci this this mooy lii this mooy yii this is my book lii sama livre benn wala this is one book lii benn livre la these are my books yi samay livre lañu wala these are three books lii ñetti livre la kon bu rombe benn rek yu bari la loolu la wax these mooy yii léegi these contraire bi mooy those mooy yële those boobu tim singular bi mooy that mooy lële that is a mosque lële ab jumaa la wala those are the guys whom we were waiting for ñële mooy ña nga xam ne lañu doon lañu doon xaar those are mooy ñële ñooy léegi this bu doon this la wax dañ naan this is bu dee vis mooy yu bëri dañ naan vis R bu dee ci laaj bi duñ ko contract mais dañuy jiital R bi wala ñu jiital is bi bu dee benn is bi la jiital konoon dañu naan is this your book ndax lii mooy sa livre bu dee yu bëri mën la ndax yii ñooy sa livre dama naan are these your books ndax yii ñooy say livre léegi loolu moo tax are these boobu nga gis ko fii are these ñu jàngat beneen moo bi ci topp mooy sentences sentences mooy phrase sentence mooy phrase wax bi loolu mooy phrase statement loolu lay tekki mooy wax ji ok sentences sentence mooy benn sentences mooy yu bari loolu moo tax nga gis this ñëw au lieu de this ñëw ok these are these sentences true true true mooy vrai mooy dëgg or wala false lu ñu wax false wala false false mooy walla foo faux mooy loo xam ne nekkul nekkeewul niñ ko yaakaare woon ok that's mooy loolu dëgg la that's not true mooy that's loolu baaxul loolu faux maanaam nekkul li ñu ko yaakaaree woon ok léegi true mooy ne waaw wér na false mooy ne déedéet wérul waaye français si topp ñu war ko liir duñu la ko si joxe dañuy dem ba si dernier bi incha allah pour nga comprendre ko wala voilà balaa booba di comprendre bu baax na koy defee on these sentences true or false ndax phrase yi dëgg lañu waaw or wala false wala duñu dëgg maanaam wala nekkul niñ ko waxee niñ ko tëggee léegi nag tell your teacher téléo ticce mooy waxal sa ci loolu daa mel ni texte bi ci moo la koy jox léegi yow dëgg nga koy wax da nga naan ko bii wér na wala wérul loolu lañ soxla si yow mais nañu ko complété léegi nag mu ngi aju si yow ni nga xamee réew yi ak seen official language nan lañ koy yan la ñuy làkk exemple Sénégal ban la ñuy làkk exemple Cameroun ban la ñuy làkk Guinée-Bissau ban la ñuy làkk niki noonu Côte d'Ivoire ban la ñuy làkk léegi exemple ci loolu noo ko war a mën a defee buñ ne loon nit ñu dëkk euh, Côte d'Ivoire arab la ñuy làkk ne la dëgg la wala du dëgg maanaam true la wala false xam nga boobu dañu naan false exemple noonu lay demee bu ñu loon nit ñu nekk Sénégal Sénégal ne la France la ñuy làkk français bu ñu la true or false da nga war a wax ne true mooy dëgg la parce que dañuy sukkandiku ci langue officielle bi di la ko laajee donte ni am na yeneen local language yoo xamante ne ñoo ngi ci biir dëkk bi noonu lañ koy defee ok léegi ñu continuer ci phrase yi nga xamante ne teacher bi moo ñu ko jox di xaar ñu ne ko waaw wér na wala wérul ok one number one people in Nigeria they speak French léegi noonu lañ ko bàyyi noonu la waxee nit ñi nekk Nigeria de France lañuy làkk damay dikk ne waaw muy true wala ma ne no muy false ok people in Nigeria speak French mooy nit ñi nekk Nigeria France lañuy ñuy làkk loolu la wax moom lan laa koy wax dama naan ko false maanaam it's not true because people in Nigeria speak English bu dee Nigeria anglais lañuy ñuy làkk ñu continue ci beneen bi number two people in Senegal speak English nit ñi nekk Sénégal anglais lañuy ñuy làkk dama naan mm, no because people in Senegal they speak French nekkul ne dafa sukkandiku si ñëpp li ñuy wax waaye mooy langue officielle bi lañ si jublu ok foofu ñu am lañ fi jàngat boo xoolee ci livre bi Sénégal da ciy def accent da ko bàyyi rek niñ koy bindee mais anglais du ko bindee noonu anglais du am benn accent moo tax Sénégal gi accent yi nekk ci kaw dañu koy dindi. mu nekk Sénégal au lieu mu nekk Sénégal Sénégal mooy Sénégal nga bàyyi ko xel donte ni ci livre bi noonu lañ ko bindee ok léegi foofu dama naan force ndax people in Sénégal they speak French ñu dem si number three bi mooy people in Mali they speak French voilà people in Mali speak French ma yes maanaam it's true yes that's true that's a correct sentence mooy loolu phrase bu wér la ndax people in Mali seen langue officielle bi mooy French bu boobaa that's true people in Côte d'Ivoire they speak Spanish ñi nekk Côte d'Ivoire espagnol la làkk ma ne no that's not true because that's false déedéet ndax ñi nekk Côte d'Ivoire français la ñuy làkk lan lay wax it's false mooy it's not true ba léegi people in Guinea Bissau speak Portuguese people in Guinea Bissau speak Portuguese man yes that's true because people in Bissau Guinean wala Guinea Bissau they speak portugais mooy ñoom portugais la ñuy làkk dafa aju nag ci seen langue officielle bi loolu moo tax moom lañ si jublu donc loolu la soxla ci li njëkk maanaam ne nii lañuy bindee France lan lañ si jàngataate boobu jàngataale booba yow mi def yow mi jàng si école wala soit nga gis ko si benn exercice wala ci benn compétition wala ci benn examination boo gisee ñu ne truth or false fi ngay yem mooy ci baat yooyu amul looy dolliyaat lii problème bi kay mooy phrase bi ñu bind ndax comprendre nga ko wala comprendre ko boo ko comprendre nag bu dee waaw nga def true bu dee déet nga def false bu ñu defee tim right muy dëgg walla wrong muy loo xam fële ba léegi lu nekkul dëgg ñeenti baat yooyu lañuy gën di jëfandikoo maanaam right or wrong wala true or false ok waaye du ñu indi right mu ànd ak true wala ñu indi false mu ànd ak wrong léegi ñu continuer ci beneen bi ci bii bi where do people speak French loolu nag dañ koy jël ci méthode nga comprendre ko du ñu lire phrase bi yëpp mu jeex dañ koy def benn par benn ba mu jeex di nga comprendre where do people speak French mooy fan la nit ñi di làkkee français ñu ñëwaat where do people speak English fan la nit ñi di làkkee anglais ñu ñëwaat where do people speak Spanish fan la nit ñi di làkkee espagnol ñu ñëwaat where do people speak Portuguese fan la nit ñi di làkkee portugais léegi laaj yooyu noonu nee na tontu ya nga wax ko sa teacher loolu nag laa la wax ne la danga koy def ci commentaire yi léegi sama laaj bi mooy fan la nit ñi di làkkee French danga naan ma people in nga wax turu réew mi speak French tontu bu tontu beneen question bi mooy where do people speak English danga naan ma people in nga wax réew bi ne speak English ok bu beneen laaj bi boo koy tontaat troisième bi mooy where do people speak Spanish fan la nit ñi di làkke espagnol boo may tontu dag naa ne people in nga wax réew mi nga xam ne fa la nit ñi di làkke espagnol nga ne speak Spanish beneen laaj bi bu ma ne la where do people speak Portuguese mooy fan la nit ñi di lakkee portugais danga naan ma people in nangam nga wax réew moom mu ne I speak portuguese yaakaar naa loolu leer moo tax mu ne tell your teacher donc kon laaj yooyu ngay jox sa teacher gannaaw boobu la laaj lii fexe leen nag di def exercice ndax yu bari ñoo xam ne ñu bari buñ ko liiree duñ ko def donc te exercice boobu dafay tax dafay tax kiy jàngale comprendre mais ñu ngi koy suivre normal en même temps ñu ngi koy déglu bu baax a baax wala dégluwuñ ko bu baax ndax. bu ma nee defal tontu bi laaj naa la li ci commentaire yi nga def ko boo ko deful rek du ma wóor ne liir nga message liir nga vidéo bi ba mu jeex wala jàng nga ko wala jàng ko wala xam nga ko wala xamoo ko ak loolu tim moo lay dimbale moo ñuy dimbale tim ñu comprendre comme li ñuy waxee ne càpt bu jeex balaa ñuy dugg si beneen fexeel ba boobu nga xam ko bu baax a baax ok léegi ñu demaat ci C bi muy C where do people speak bambara fan la nit ñi di làkkee bambara. loolu nag yow xam nga jànguñ ko ci langue officielle yi fee ci kaw waaye yaay xool ne fan la nit ñi di làkkee bambara ci West Africa ci réew ñuy jàng noonu nga ne people in nangam they speak bambara exemple people in nga ne Mali they speak bambara ñi nekk Mali dañuy làkk bambara gisuñ ko ci langue officielle yi waaye ci langue locale yi la bokk ok. where do people speak Hausa fan la nit ñi di làkke Hausa bu boobaa tim nga in nga wax réew bi ne speak Hausa where do people speak Ashanti fan la nit ñi di làkke Ashanti bu fekkee xam nga ci réew yooyu West Africa réew yi nga xam ne jàng nañ ko benn réew woo xam ne nit ñaa ngi fay lakkee Ashanti nga ne people in tak tak tak nga wax réew bi ne speak Ashanti beneen laaj bi mooy where do people speak wolof fan la nit ñi di làkkee wolof walla bu boobaa nga ne people in tak tak tak nga wax réew bi ne speak wolof maanaam fan la ñuy làkkee wolof beneen laaj bi muy where do people speak Maori mooy fan la nit ñi di làkki Maori bu fekkee xam nga benn réew ci réew yooyu foo xam ne nit ñi dañuy làkk langue boobu muy local langue muy Maori bu boobaa nga ne people in nga wax tag ba pare doog a def ne I speak Maori léegi nag kon laaj yooyu tell your teacher wax ko sa teacher bi te nee naa la comme que classe bi mooy <laughs> commentaire yi donc foofu nga ko war a tontu bu baax a baax nga bàyyi xel bu baax a baax ci loolu léegi loolu ñaari laaj laajin la bi ci kaw fexeel ba tontu ko mooy laaj yi jëm ci langue officielle yi bi ci suuf tim fexeel nga tontu ko mooy langue yi jëm si langue yi nga xam ne wala langage yi nga xam ne mooy langage local yi non official ok léegi nag with your partner ask and answer like this bi si suuf moom tontu wi ñëw na maanaam ànd si sa ak partenaire laaj ak tontu comme nii nag niki nan léegi bu ñu ne wala bu ma ne which African languages do you speak ban ci langue af africain yi ngay làkk xam nga ne France du langue africaine français du langue africaine english du langue africaine portugais du langue africaine wala spanish du langue bu ñu ne which language of do you wala which african languages do you speak bu boobaa dañuy tom dañuy tànn wala dañuy jéem a xool ci local language ban nga ciy wax ma langue yi nga xam ne nekkul non officiel yi ñuy làkk ci local bi ok léegi exemple comme que livre bi système bi dafa adapté wu ci Sénégal moo tax nga gis tontu bi mu nekk I speak wolof loolu lu muy tekki mooy kana kon borom livre bi ki koy jàng Sénégal nekk I speak wolof. ndax wolof Sénégal la gën a siiwee dont ne dañ koy làkk ci yeneen yi mais bu ñuy seet local language bi nga xam ne mooy wolof dañ koy gis senegal la ëppee ci yeneen réew yi ok léegi ci African languages do you speak ban ci langue africain yi moom ngay làkk ma ne wala yow nga ne wala Moodu nee na wala Fatou nee na wala Kumba nee na wala abdu nee na I speak wolof mooy wolof laa di làkk ñi wàcc ci suuf ba léegi. ci number three bi muy listening and speaking déglu waaye ak wax cours yi nag dafa yaatu de dafa yaatu gën bàyyi ci xel bu baax a baax a baax cours bu nekk rek boo ko naroon def classe dina mat trois wala quatre leçons yoo xamante ni donc tey da ngay jàng suba nga jàng ginnaaw suba nga jàng ginnaaw waxtu suba nga jàng mu doog a jeex parce que boo xoolee partie bu nekk rek dafa yaatu ci liñ fi leeral foofu noonu li ko waral nag boo ko xamee ne YouTube mooy. mu ngi fi demul fenn donc loo ci amaat loo xam ne da laa réer rek da ngay dégg nga sekk fi bu baax a baax mais nag nga bàyyi xel ni cours yu yaatu la yu yaatu la ok listening and speaking déglu ak wax listen and repeat déglu te bamtu waaw léegi listen and repeat I am Dudu man la Dudu ah léegi kon ñoo ngi bëgg a am wax de. I am Dudu mooy man la Dudu ok I speak French damay làkk français ndax français kese la mën a wax foofu déedéet ak bépp official language boo xamante ni mën nga koo jëfandikoo ak bépp local language boo xam ne mën nga koo jëfandikoo bu la neexee nga ne I am Dudu I speak wolof bu la neexee nga ne I am Dudu I speak bu la neexee nga ne Dudu I speak bambara. bu la neexee nga ne I am Dudu I speak Spanish bu la neexee nga ne I am Dudu I speak I speak Portuguese dégg nga kon langue bi yëpp mën nga ko si jëfandikoo ni ki noonu fi Dudu nekk mën nga wax ayam am Fatou I am John I Kumba I nga wax tur boo xamante ni moom nga moom nga tudd ok I am Dudu I speak French man la Dudu man de damay làkk français waaw. yow Dudu fan nga dëkk hmm. kon ñaari laaj yu nëbbu foofu yoo xam ne feeñuñu yow yaay kan mooy who are you nga ne I am Dudu man la Dudu bu ma ne which language do you speak wala mën la do you speak please langue bi which mën nga wax which European language do you speak ban ci langue européen yi moom ngay làkk nga ne I speak French. ndax du bokk ak laaj bu njëkk bee ci kaw nga doon gis ne which African languages do you speak ndax loolu dafa concerner langue locale ci biir Africa waaye which European language do you speak mooy ban ci langue européen yi moom ngay làkk nga ne I speak French mooy français laa di làkk waaye ñu continuer the capital of my country is Dakar sama réew xam nga waxul turu réew bi waaye capital bi la jëfandikoo dinañu gën a gis lu gën a yaatu ci kanam ok the capital of my country is Dakar kon maa ngi dëkk senegal sama réew de capital bi mooy Dakar li muy tegtale kon maa ngi dëkk senegal ndaxte Sénégal Dakar is Dakar is the capital of Sénégal ok where do you live I live in Dakar where is Dakar Dakar in Sénégal ok Dakar is a village or is a city Dakar is a city it's not a village mooy ville ok it is the capital of my country I mean that Sénégal the capital of my country is Dakar sama réew capital bi mooy Dakar I came from Sénégal kon maa ngi bàyyi ko Sénégal wala I am a Senegalese man ab Sénégalais la the capital of my country is Dakar I am a Senegalese dinañu gis yeneen i réew yi yeneen capital ci yeneen réew yi ci kanam léegi incha allah ok ñu liraat liste boobu I am Doudou man la Doudou I speak French man damay làkk France de hmm, the capital of my country is Dakar sama réew de capital bi mooy dakaar kon li muy tegtale mooy I came from Sénégal man maa ngi bàyyi ko Sénégal waaw ok ñu dem ci number four muy reading and speaking lire. waaye ak wax read the descriptions and answer your teacher's questions liiral description yi nga laaj nga tontu sa laaj yi nga xam ne la sa teacher bi di laaj liir ko bu baax hmm, léegi ma essayé xool li tax mu ni ma liir ko nag dafa bëgg a wax rek ma xool baat yi ñëwaat dafa mel ni comme duudu def la ñenn ñi di def mooy yeneen yi waaye nag daa am lu ci manqué bu fekkente ne xamoo réew boobu maanaam capital boobu ban réew la nekk dina la dimbale nga xam capital bi ban réew la nekk dina la dimbale nga xam réew bi ban langue officielle la ñuy lañuy ñuy làkk ok léegi I speak French man maa ngi làkk français ok maa ngi làkk français the capital of my country is Yaoundé the capital of my country is Yaoundé mooy maa ngi làkk français sama réew capital bi mooy Yaoundé kon fan laa dëkk where do I live man fan laa dëkk wax ma ko ci commentaire yi fan laa dëkk déglu bu baax de I speak French maa ngi làkk français the capital of my country is Yaoundé sama réew capital bi mooy Yaoundé léegi where do I live fan laa dëkk bindal ma ma you live nga wax réew bi noo koy waxee nag day teg day fekk nga xam Yaoundé ban réew la nekk capital ba mooy Yaoundé ok ba léegi I speak Portuguese mooy damay làkk portugais man damay wax portugais de the capital of my country is Bissau capitalu sama réew mooy Bissau kon ban réew laa dëkk ba léegi wax ma ko ci commentaire bi mooy where do I live ñu dem ci beneen I speak French damay làkk français the capital of my country is Yamoussoukro man damay làkk français sama réew capital bi mooy Yamoussoukro léegi where do I live fan laa dëkk nag ma ko wax ci commentaire yi I speak English mooy damay làkk anglais the capital of my country is Accra sama réew de capital bi mooy Accra léegi where do I live fan laa dëkk wax ma ko ci commentaire yi ba léegi I speak English maa ngi làkk anglais the capital of my country is London léegi boobu nag bokkul si ñuy jàng waaye fexeel nga xam ban la maanaam réew ba nga xam ne capital bi mooy London foofu ban réew la ci réew yi ok loolu mooy leçon bi yaatu na lool nag mais nga bàyyi si xel ñi dem ci kaw liraat languages of Africa listening mooy déglu listen and repeat déglul te bamtu English mooy anglais French mooy français language mooy langage Portuguese mooy portugais Spanish mooy espagnol languages mooy langage yu bari speaking mooy ci wax bi are these sentences true or false ndax phrase yi dëgg la wala du dëgg bind nañ ko pare nag bu dee dëgg la tell your teacher waxal sa teacher bi nee naa bii moom jarul def ndax def naa ko ba pare people in Nigeria nit ñi nga xam ne ñoo dëkk Nigeria it speak French la France la làkk boobu newoon naa la moo di false ndaxte they speak English people in Sénégal speak English nit ñi nekk Sénégal anglais la ñuy làkk nee naa la force la mooy du dëgg ndax people in Sénégal speak French people in Mali speak French nit ñi nekk Mali dañuy làkk français nee naa la yes mooy true people in Mali ñoom they speak French people in Côte d'Ivoire speak Spanish nit ñi nekk Portugal nit people in Côte d'Ivoire speak Spanish nit ñi nekk. Côte d'Ivoire ñoom espagnol la ñuy làkk nee naa la that's false ndax people in Côte d'Ivoire speak French people in Guinée Bissau speak Portuguese nit ñi nekk Guinée Bissau ñoom portugais lañuy ñuy làkk nee naa la yes ndax ñoom seen langue officielle portugais la ok boobu true la ñu wàcc ci suuf where do people speak French. fan la nit ñi di làkki français système mu bind bii nag nga bàyyi ko xel saa boo ko gisee bàyyil xel ne dañu naan la option mooy baat bi fi lay yem option deux baat bi la ñu soxla exemple fii option un French la ñu soxla option deux bi English la ñu soxla option trois bi espagnol la ñu soxla option quatre bi portugais la ñu soxla léegi nag mais laaj yi kon du tontu day tegtale ne France bi baat yi yëpp a ko bokk bu ñu koy laaj ni ñu koy laajee maanaam where do people speak foofu la yem. léegi leneen lu ci toppaat mooy langue boo ci bëgg a dolli loolu moo tax nag nga gis where do people speak French mais du nekk benn laaj nga dikk rek ne where do people speak French English Spanish Portuguese loolu day fekk kooku xam li nga li nga si jublu pour nga détailler ko nag da koy jël benn par benn where do people speak French fan la nit ñi di làkki français nga pare ci laaj boobu nag where do people speak English dégg nga benn par yaakaar naa dinga nga comprendre bu baax li ma wax where do people speak French fan la nit ñi di làkkee français where do people speak English fan la nit ñi di làkkee anglais where do people speak Spanish fan la nit ñi di làkkee español where do people speak Portuguese fan la nit ñi di làkkee portugais léegi nag tell your teacher wax ko sa teacher where do ñu dem ci kii bi where do people speak Bambara fan la nit ñi di làkkee Bambara. where do people speak Hausa fan la nit ñi di làkkee Hausa where do people speak Ashanti fan la nit ñi di làkkee Ashanti where do people speak wolof fan la nit ñi di lakkee wolof waaye where do people speak Maori wala Maore fan la nit ñi di làkkee Maore tell your teacher ba léegi nga wax ko sa teacher yooyu nag wax naa la nga def ko ci commentaire yi ñu dem si D bi muy with your partner ask and answer ànd si sa partenaire laaj ak tontu comme ni ok which African languages do you speak ban ci langues africain yi moom ngay làkk li ci soxla nag mooy local language nga ne I speak wolof mooy damay làkk wolof. listening and speaking déglu ak wax listening and repeat déglu te bamtu ok I am Dudu man la Dudu I speak French damay làkk français the capital of my country is Dakar réew mi ma dëkk capital bi mooy Dakar I came from Sénégal ah, kon kay maa ngi bàyyi ko Sénégal war nga koo xam reading and speaking déglu euh, euh, liir ak wax the descriptions and answer te teacher's questions liir description yi waaye tontu laaj yi nga xam ne la la sa ticc bi di laaj ñu continuer ba léegi nee naa la andil ma turu réew yooyu I speak French damay làkk français the capital of my country is Yaoundé sama réew capital bi mooy Yaoundé I speak Portuguese damay làkk portugais the capital of my country is Bissau sama réew capital bi mooy Bissau I speak French damay lakk français the capital of my country is Yamoussoukro sama réew capital bi mooy Yamoussoukro I speak English damay lakk anglais the capital of is Accra sama réew capital bi mooy Accra I speak damay làkk anglais the capital of my country is London sama réew capital bi mooy London fii mooy li nga fi nga xam ne lañuy yem ci lesson bi nekkoon number three muy tombeek nag vingt quatrième leçon bi vingt muy tombeek leçon vingt quatre ok si livre bi di que for English ngeen àndoon ci ak Miss ci seen YouTube bi di English Books in Wolof thank you so much bye bye